jigéen ñi dañ am jafejafe yu bari sax because jigéen ñi si kër gi ñu ñoo dee nekk kayaay ñu ñoo dee toppatoo suñ doom yi ñoo leen dee yar daar papa bi daal lu am pour def rek mooy joxe dépasse am na ndax naa ndax mutut moom yoonaam nekku si moom dafa joxe rek dem waa ñun jigéen ñi nañ make sure suñ xale dem nañ school te danañ fu baax am nañ lu ñoo lekka am nañ good education nkaa katal ka to dimbayami majority abe musol le bulu nañin na dow fe fe rol men keketen a pekata le jigen mun na dem school wacha school minister ne ka comme mayor like Rohey Malick ne ka comme national assembly mu ka fa mun jigen mun na dem sax ba ka président loolu yëpp ci yokute la boka ndi musoli ol fanan karandil meni be metiola ye meti koyo soto min ye karaŋono a ñaama ye maako ye karandi kende ke ye kosñol soto kata bantala bankol ka fay se keno directol ti ye ke ministre musol ye siya lafta wolel ministre muso ye siya directo musol ye siya ñiŋ ñaatonkol ye palaso di musol le musol ñaaton kayandi ye bambandi jigéen boo kana ci ñi nga xam ne ñoo dee dooleel réew jigéen ak xaleel ñoo em ndik soo xalaatee ne tey képp koo xam ne jigéen nga woon sa papa te sa yaay nanguwul woon nga dem school lim nangu mooy nga dugg a waañ jaa nga toog a jaa nga fóot 17 years jox nañ la jëkkër te loolu gis nañ ne dafa delloo réew gannaaw ndig jigéen mooy doole réew korda jama be loorin um solle la semboyaati nawli be loore min man sakunda danile e musol sembentoyiyande e musol dema ika demaroli men fo ay futa musoli ma ay futa laftawal jigéen mooy réew jigéen moo amee réew jigéen mooy jur jigéen mooy boot jigéen mooy toppatoo xale mooy toppatoo kër dem na ci ba fi mu nekk nii jigéen ñi school fii su yi sax ñoo ko amee am na ci ñoo xam ne sax ñoo de fay seen luwaas fay seen ndox def yëpp gambia musoo ka kuwo men kata nin a tara nun politiko fanan kono nun o wokkata nun jeenu te no nun batate kela te meni ɓe gaadino to bayri be yamute sembole nte mama buta saabijir saabijin koolu wol manca hano soto ila gaadini ɗo kuwol ila dimbaali manca hanir man bi waxayo man bi man dama suma self employé boppala da do a business of my own da nga gis ne man business petit business ni ma def santana ci yalla ba bari ndaxte dipenuma ken musol ye sembo sitoɗaɗa because ni aje ke jama korda jama be lori musolemo de katu musole ka lonki di atele be informo o san atele be saldo ndiko san ƴe contogo mem famu mu contogo ti dasama sima atele ɓa dila ɗigol woto ni wo musoto o korda kono o korda ɓe boylale de me si school sa right now school angi so de me sirangi suneke 100 la eighty bi wala ninety yëpp ne dañoo nekk jigéen pour dem feeli seen lifin am na yenn papa yoo ne saxamuñ xamuñ seen doom yi seen school yi fuñ nekk ñun jigéen ñi ñooy nekk di lijjante di laaj di réew mënut a dem te jigéen bokku ci mënul nekk ndig yàlla suñ borom ñun may nañu loo xam ne xam-xam boobu tey bu nekkoon ci góor kon adduna bi dafa gën a yokku nekkoon Gambia ci réew yi gën a nekk ci kanam ci laa bokka jigéen war ngaa dem si kanam te jigéen soo ko xelalee daf dee xelal di wal nation soo gisee xale fu mu gën tuut xale fu moo njëkk a jàngee si yaayam fu moo nampee la dee door di jàng yaayam door di ko jàngal lu bon ak lu baax kon jigéen boo ko tegee foo ko tegee place rek dina la mun a defaral lu baax ak lu bon xam na lu bon xam na lu baax waaye ñun fii dañoo teg naa dangaa jël góor gi jiital ko dëgg la ñoo jiital góor de waaye jigéen tam dañ leen war di jiital mais leen place yoo xam ne dañ leen war di jiital ndax am na éducation yoo xam ne si jigéen la dee njëkkee ko yaay boo gis yaay ji ka jàngal sa doom balaa tica bi di jàngal sa doom. ñu jàngal jigéen ñi nañu ee jigéen ñi nañu bàyyi jigéen ñi xel ndaxte jigéen mooy réew. debbo goto jannguɗo no finndini jama fof ko nde on watta ɗo no woni